ñu dafay ñeel actualité ni ñu ko fa yéenee faram fàcce loolee tax ñu ci rek ànd ak sunu gan goo xamante ni xelam da si rek euh, daal di màcc euh, ki ci àndal tey ji moom moo di Wandifa Dramé moom mi nga xamante ni mi ngi bokk euh, ci ñi daal di fondé APR fa nga xamante ni bokk na ja diwaanu Casamance kii ci Ndakaaru loolu nag la sabab ñëwam bokk na ci li ñu nar a waxtaanee moom moo di kii di Benoît Sambou ginnaaw boobu ñàkkee li nga xamante ni moom moo di mairie ba Euh, euh, coow la ca rek daal di juddu ak doxalinam waaye euh, Sonko na mu def nag kon ba nangu mairie ba cay loxoom loolee daan ci toftal itam wax ci li nga xamante ni moom moo di rek APR en général ak adhésion yu bees ba no benn buñ ci mën a wax moom moo di kon dikkub Bamba Fall ci peggu président de la République loolee yëpp ak jeexintal yi waaye duñ ca mooy ndax sunu invité mi ngi yeewoo foofee ca Casamance te lu jëm ci MFDC ak nanu bàyyee sunuy soldat itam soxal nanu daañu dooree sax loolu ak euh, waxtaan wi laataa ma koo bàyyi mu nuyoog yéen euh, ñi seetaan Babacar Kebe mi nga xam ne euh, saa su ne laay am mbégte di bokkal plateau bi démb nag nekk fi woon daa abaloon kàggu gi. wala boog micro bi fàllu seen ak <laughs> ngi lay ziar di la nuyu di ñi nga xam ne saa su ne ñooy topp seen émission bi nga xam ne moo di ultimatum à chaque fois mbégte gu mag a mag moom la ñu am teew ngir fas yéene jàkkaarloog ñoom di waxtaan ci lu ñuy wàllum actualité. Mhm. tey ji comme ni nga ko waxee tembe teewaat nañ ngir fas yéene waxtaan ci leen ponk yu bari lool te wuute lépp dala ñeewal li nga xamante ni wala mm-hmm. xew-xew réew mi waaye itam la dala ñeewal ci bitim réew Aïda mu ngi noonu Wandifa ginnaaw bañ defee présentation bi mu nuyuwaat la bàyyi la ak suñuy internet waaw mm. ah, salaamaaleykum waaleykum maa ngi leen nuyu euh, di nuyu euh, Aïda mm, ak euh, Babacar mm-hmm. di rafetlu aussi liggéey bi. Mm. vraiment fi ngeen jógee ak euh, fi ngeen ñëw. Mm. Euh, impression bi ma ñëw bi ma dugg see. Mm-hmm. ay jeunes laa fi fekk. Mm-hmm. donc loolu kontaan naa si trop. Mm-hmm. voilà jërëjëf. ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu itam ñu itam ñu ngi kontaan ci ñu ñu nangulee invitation bi tey nag gis ngeen bula lañ def. Euh, <laughs> vraiment dañu def bula génn Saint-Valentin autrement la def. Ah, <laughs> ah, <laughs> mu ngi noonu j'espère que kontaan ngeen. <laughs> parce que boo xoolee bleu blanc bi moom <laughs> man ni faa woon diiree dafa dafa ñëw cache ak man ci montre bi ci dal yi lépp voilà. man man na ñëw ànd ak moom si bleu blanc bi vraiment ah, mi mi ngi noonu. alors euh, euh, ñu fas yéene rek daal di kon dugg ci li nga xamante ni moom moo di rek euh, waxtaan bi hmm. ni ma ko rek daal di waxee léegi nii moom moo di rek lu jëm ci MFDC gis danu euh, euh, gannaaw walu jëm ci euh, lanu rek daal di téyewoon ñi nga xamante ni ñoom ñoo di suñuy soldat ñu toll ci juróom-ñaar ni ki démb nag daal nañ leen bàyyi ñuy dellu seen i mbokk déjà yow mi yeewu ci diwaanu Casamance ak jéego yu ñu defoon ginnaaw 40 ans yoo xamante ni dund nañ ko ci guerre ak ñàkk jàmm foofu ca biir gox ga lu nu mel xewaat fi ban jàngat nga si mën a def. merci beaucoup Aïda. baad auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi yassir sadri wa yassir amri wahlul uqdatan euh, maa ngi nuyu ñëpp mm-hmm. su ma ñëwaatee si problème euh, Casamance mm-hmm. euh, mun maa ñëw fii wax ba pare mm-hmm. duma si wax ndax Casamance yi la boo leen xoolee sax olof yi sax demul noonu donc Casamance laa juddoo fa laa yaroo Euh, defee sama lépp aussi euh, maa ngi fàttaliku ñin bi ñu nekkoon xale mhm. yàggul dara 2003 mhm. euh, bi boobu ñun dañ bu ñu doon dem école mhm. am na ay jours yoo xam ni dañuy dem jékki-jékki rek jëndi si classe yi daw ndax lan attaque 2003 mii man mii di wax ak maa ngi dëkk Euh, Bounkiling euh, attaques yu bëri entre euh, département de Bounkiling mhm. ak Ziguinchor lay am donc jamono boobu mhm. bu Robert yi defee seen attaque mhm. blessé yi ak ñi si dee Bounkiling lañ leen indi ñi ni yëpp dañ doon ñëw leen di seetaan je me rappelle très bien jamono boobu boo fi ñëwee vacances ay tout tànk lañ dañ lay xoolee bët Robert ici à Dakar à et partout même parce que doo toog semaine déggoo ñu ne attaque. Mm. ñi dem dem dem ba jamono Macky Sall ñëw loolu nag ñu si sant yàlla bu baax donte ñi fa jaaroon yëpp defoon nañ effort. Mm-hmm. mais yàlla def na ni Macky Sall bi mu ñëwee ak diplomatie bi mu indi mooy régler la problème le problème de Gambie. Mm-hmm. parce que ñun ñuy dëkk Casamance xam na ni. tant que euh, président bi fi nekkoon Yahya Jammeh rébellion bi di mus réglé man mii euh, depuis opposition bokk na si loo xam ni tamit ñi adhéré intégré parti bi mhm. euh, yaakaar bi ñu amoon bokk na si la paix en loolu saa ñu toogee ak président. Mhm. dañ ko koy wax. moom tamit yàlla def bi mu nekkee président de la république mu def si ay effort effort bi mooy lan négocier ak yaa jame pour que euh, rebelles yi bu ñu defoon attaque dañuy mm. dugg Gambie foofu lañ doon dem mm. mais euh, mu leeral ni tamit mm-hmm. tout sauf indépendance xam nga nit booy négocier tamit boo buggee am dam waxal rek dëgg mm-hmm. tout sauf indépendance voilà indépendance donc bi mu defee loolu mm-hmm. gis na ni Yahya Jammeh ni mu jógee ci nguur yi ak Macky Sall li mu si def ba Adama Barrow ñëw donc depuis Barrow ñëw. gis mm-hmm. na ni léegi rebelle yi léegi amatuñu fu ñuy dem. changement am na ci doxalin. voilà changement am na. Mm-hmm. donc tey bu ñu toogaatee encore. Mm-hmm. ñi ne euh, rébellion man gëwma ko man li ma gis du rébellion. lan la parce que rébellion ça n'existe plus. ah bon dëkk Casamance xamante nañ Casamance avant 2012 boo doon dem à 20 doo dugg dañuy bloqué fépp. doo toog weer attaque amul mais léegi loolu lépp amatul attaque amul oto yi dañuy daw vingt quatre heures sur vingt quatre robel yi sax léegi mu mënatuñu def attaque parce que Guinée-Bissau fee nekk maa ngi saluer au passage le président moo xam ni def na effort bu bëri si diplomatie boobu donc dañoo fat Guinée-Bissau fat Gambie. Gambie donc rebelles yi léegi amatuñu fuñ fi ñu jëm parce que Iran ak pardon pays bu ñu doon bu leen doon. laax non fournir. di jaarale ko par Gambie ak bi Bissau diplomatie président de la République tax na ba léegi mënul arme benn arme du. kon léegi noo mën a comprendre par rapport ak situation bi ni mel. mu jékki-jékki benn instant jilaat benn ampleur bi te yow nga gëm ni nekkatuñu ay rebelle. lan non man mun ma koo jàppee rébellion li ma ko jàppee li xew Casamance mooy mafia mafia ñoom attaque lañ doon def pour dund rebelle yow léegi amatul parce que mënatuñu def attaque ñi di di jaay euh, ay drogue mooy chambre euh, seen seen seen kii quoi tool yi tool yi léegi sa marche pas militaires yi jël lakk ko léegi lenn rek moo leen desee pour dund mooy lan bois grappe bi. trafic hmm. bois bi trafic bois bi. Hmm. trafic bi la ñuy jël dagg bois bi dem jaay ko Chine jaarale ko par du bi léegi nag militaires yi loolu lañ dem ba gis couvre leen. Hmm. dem ñuy interpeller ñoo xam ni ñoom ñooy attaqué eh, ñoom ñooy jël bois yi. robel yi jóg daal seen kaw mais loolu damay profité. su ma ñëwaatee di lancer appel moo xam euh, ñoom xam ni suñu frère lañ. Mhm. Euh, suñu dëkkandoo lañ suñu mbokk lañ. Mhm. di leen di ñaan di leen xamal ni trente ans conflit amoo si ndam vraiment Salif Sadio ak César nañu ñëw euh, se rendre mooy lan nañu nañuy ñibbisi ñëw si biir kër gi parce que indépendance. bu dee loolu la indépendance Ziguinchor la Casamance ne se limite pas à Ziguinchor te mm-hmm. Casamance y a trois régions là-bas y Kolda y a Sédhiou y a la Ziguinchor euh, Ziguinchor tey sañoo dem Kolda nga ne leen indépendance laa bëgg sañoo ko sañoo dem Sédhiou yoo xam ni Mandé ñoo fa nekk nga ne leen euh, lii laa bëgg donc indépendance bu ñu koy laaj day fekk majorité bi ànd benn côté rek mënul taxu muy naan indépendance te ñoom xam na ni. mais ñoom est-ce que pare nga xamante ni même pour parler ñi ngi wax ni sax pare wuñu ngir defee ko Afrique euh, si bitim réew lañ ko paree defee est-ce que ñooñu dinañ ñibbisi wala boog jàpp nañ ñi ba tey sax ni Casamance dafa bokk ci Sénégal. oui Casamance dafa bokk ci Sénégal loolu laa lay wax ni ma ne la indépendance buñ koy laaj buñ ne buñ ne. Casamance Casamance ne se limite pas à Ziguinchor man je suis dans la région région de Sédhiou mhm. Sédhiou mënoo fa dem mënoo sañoo fa dem nga fay wax indépendance mhm. sañoo ko mhm. sañoo dem Kolda nga fay même Ziguinchor benn côté la ñoom ñoom ñoo koy def te loolu mooy ñëw xam ni nañ waxante dëgg xam na ni indépendance mënul am léegi lan lañ fay nekkee nan la ñuy amee xaalis donc man lan laa leen mën a wax indépendance ak mënul am illaa yow mi diin man su ma déggee ak li ma gis par rapport ak li ñuy dégg dafa xaw a contradictoire parce que dégg nañ Salif Sadio mu ne soxlawul moom koppar pour dund mhm. parce que bu dee xaalis la wala lu mu réglé pour dund am na ko déjà te tey ay da gis na ko au niveau des journaux li ñu xëyee mooy démb bi ñuy libéré les les sept soldats démonstration de force dëgg la ñu def ne mhm. am nañu maanaam matériel bu mat sëkk pour mën a nekk des véritables combattants faire face nag léegi bu ñu boolee ñaar yooyu ak li nga xam ne tamit ñu ngi koy réussir au niveau de la Gambie parce que bu ñu attaqué ay soldats yoo xam ne yu Sénégal lañ bokk ci CEDEAO mhm. téye leen en otage presque une dizaine de journée ak lu ko ëpp loolu nga boole ko ak matériel démonstration yi ak ak ak sorti Salif Sadio nga yaakaar ne li ngay wax ni du minimiser boo xamante ni mën nañ indil euh, seytaane. loolu man euh, li ma siy jàpp seen armes yi. Mhm. rebelles yi ça des années attaqué wuñu parce que amuñu buntu amuñu fenn fu ñuy jaar. armes yi ñuy jëloon depuis temps yaa avant yooyu la. comprendre ba léegi moom lañ ñëw léegi man lu may ñaawlu rek mooy li waa Gambie def. parce que Gambie ñin bi yaayaa jëmme jógee fii. ñun yëpp dañoo tàccu. ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin Adama Barrow fii lañ ko falee. fii la jógee ñi gunge ko ñi dem. Macky Sall dégg si lu ne. ñun ñii ñi kontaan. donc tey mënumaa comprendre ay journaliste gambien jël seen caméra. dem dugg ci Casamance di filmer suñuy militaire ma loolu xaw ma fan lañ ko teg te ambassadeur Sénégal baa ngi fii état woowu ko laaj ko demande d'explication tey ban sénégalais yéen journaliste est-ce que ñeme ngeen dem Gambie dugg dëkk bu ne am na lu ñuy wax ay FARC ay bandi boo demee France. réunion boo fa demee est wax waxu complot. non du complot man sabotage laa ko jàppee. ñan mooy saboté pourquoi saboté ñoo xam te ni armée bu Sénégal présentement mun nañu wax ni ñooy sax a ah, kaaraange bu Gambie. voilà foofu laay ñëwee. Mhm. xam nga mënoo contrôler lépp te médias yi dem foofu média privé lañ. Mhm. comme fii nii bëri trop kenn mënu dugg jël caméra bi dem filmer mais filmer. Mhm. yéen yéen xam ngeen sax otages yi ñuy wone télé yi doo leen wane seen kanam. mais suñuy soldats suñuy jàmbaar jël takk leen sànni leen suuf di leen humilier man loolu vidéo bi ba tey mun ma ko seetaan. te loolu man la au moment ma dolli la si. Euh, ministère forces armées génne woon. communiqué ne yenn images yi. Euh, bu ñu génnee parce que dafay xotti. ak ak yelleefu mais c'est euh, ça mhm. micro rek la jël ah du caméra ah. interroger Salif ñu raje ko ñu jël benn décret boo xam ne waa ji dootul waxati rajo image te sans ci image ah mais man mënumaa comprendre Gambien yi. Mhm. jël seen caméra dugg si Casamance sans autorisation dem fekk ay ay bandi du ma leen tuddee ay rebelle bandi yor seen ganam filmer leen ba pare jàpp suñuy armée bi militaire yi. non mais loolu image boobu c'est c'est ba pare. mais loolu encore day dellu si waat ci li nga doon wax sànq parce que au moment où ni ko Aïda waxee ministre des forces armées ak ñi nekk waa DIRPA ñu ngi dankaafu ñun les journalistes sénégalais ak médias sénégalaises bi jàpp ne lu baree bari bu ñu ko indi problème lay doon beneen côté am na beneen faay bu ibbeeku te jàpp nañ ne waxtaan ak déggoo amoon na fa mais n'empêche porte ouverte boobu dala am kon lan moo ko sabab carrément. voilà man déjà médias sénégalais yi. Mhm. parce que man saa mooy xew yi dama def tour ba seen wet ba fépp. Mm. média yi taxaw nañ ne ko. Mm. boo xoolee sax média yi lu ñuy gis si vidéo yi amul mm. fi benn télé. boo xam ni moom moo ko partagé. Mm-hmm. image yaa ngi jógee Gambie te lu dugg si réseaux sociaux yi kenn mënu koo contrôler Saliou Sadio nag. vraiment il a raté le train de l'histoire hmm? waaw. Ah Saliou Sadio moo la gën a xam ni Casamance. du neex ba neex boobu mu am indépendance. qu'est-ce la force de résister toujours. non amul force. ah mais li ngay wax Salif Sadio amul force. ku amul mais loolu laa lay wax. Mhm. c'est-à-dire ku la bett mun la. Mhm. nañ waxante dëgg ku la bett Salif Sadio toog na fi ñaata at. kenn déggu ko ah. amul amul fu muy jaar. parce que avant Yaya Jammeh moom moo leen doon dooleel. dañuy def attaque tey si ngoon ñi dem Gambie ñuy doxantu lu mu leen neexee lu ñu sàcc lu ñu jël yëpp dem jaay ko oto yi ñuy jël yëpp dem jaay ko dara du leen fi fekk. Mhm. donc depuis Adama ñëw Adama Barrow ñëw loolu kii kii tuul donc dem nañ sax ba ñu am problème de vivre bu ñu feebaree fan la ñuy fajoo lan la ñu war a lekk. Mhm. dem nañ ba loolu am donc léegi problème bi am mooy. am na ñoo xam ni nguur tamit mënoo contrôler lépp mm-hmm. man damaa jàpp ni seen complice yi ñu ngi entre Gambie Sénégal mooy bois bi la ñuy dundee. mais du ñu wax bi exactement parce que. Mhm. bi après étude yu ñu def diggante euh, ki nga xamante ni moom moo di Yaya jàmm ba mu fa nekkee ba jóge fa lu ëpp ci exportation bi ak li nga xamante ni bokk na ci économie euh, bi dafa doon jógee ci bant yi ñuy dagg muy jaar foofu dem Chine. Ah, ba ci euh, jamonoy Adama Barrow bi également. Mhm. étude bi bañ ko wéyalee dañu gis ni même chose man fay daw. alors que voilà alors que état du Sénégal jëloon na ay devant ngir mën leen di intercepter est-ce que tey tamit euh, complicité bi un am na foofu am na lu ñu waxul également. mais complicité la moo tax man may lancé appel président de la république Macky li mu def Casamance. Mhm. amul benn président bu si réussir def ko. Mhm. ñun waa Casamance ñu koy remercier si loolu. Mhm. ñun moo xam ni opposition bi ñu ñëwee. dañoo gis ni moom moo mooy la solution. ay nous n'avons pas regretté aujourd'hui topp ko ndax Casamance amoon na jamono boo xam ni. Mhm. doo fa dem. Mhm. wax naa ko mais tey oto yi dañuy dem vingt quatre heures sur vingt quatre. Mhm. tabax na ay pont ay hôpital ay tali donc lii bu mu tax mu yàq yëpp. te ñu koy négliger man mun maa jàpp ni Salif Sadio day suñuy otage pendant des des jour di leen def li ko neex. ah ñu bàyyi ko noonu quoi c'est humiliant quoi. de force. non du démonstration de maanaam force ko ngir jëlee ko fi mu nekk. voilà euh, loolu. loolu man solution wala. man li may ñaan. Hmm. Macky Sall moo tax ma ne la Salvi Sadio il a raté le train de l'histoire xam nga yàlla da lay takku moom bi mu jàppee ñii bu ñu leen bàyyi mënoon na ñëw moom ñi jàppale ko. Hmm. mu rendre nu ñu koy ñu koy hmm. waxee mu ñëw mu ne leen ah, defoon naa njuumte. rey naa ay nit. comprendre mm-hmm. def naa lii def naa lii maa ngi maa ngi baalu ñu baalu ko mu tuub buñ koy atte ñu atte ko buñ koy leneen tamit ñi kiiw nga def ko mm-hmm. mais def ko au contraire dafa yor rajoom microm di wax wax yoo xam ni mm-hmm. man dama kaa ñaawul quoi. li sabab wàllum libération bi sànq dugg nañ ci mais également beneen paala bu ñu war a xoolaat. Mm-hmm. ñu bare bare jàpp nañ ne la ñu xaatim parce que Salif Sadio dafa tëraloon ci ay tërin yu leer naññ ne lii ak lii lay sàkku ci CEDEAO parce que nee na amul problème ak Sénégal mais problème am ak CEDEAO la bii dugg parfois ci territoire donc lan nga yaakaar ne moom la war a mën a xaatim parce que nee nañ démb aussi gis nañ ay kayit yoo xam ne jox nañ ko représentant CEDEAO mm-hmm, mm-hmm. mu siije ko ba noppi ñu doo ko doxal ci wàllum échange bi mm-hmm. lan nga yaakaar ne lu ñu war a mën a xaatim la ba tax solution war a mën a juddu soldat yu dellu seen jaboot non saa waay xaatim moom amu fi yi nga nit da ngay wax dëgg rek te yàlla tax mm. erreur am na loolu boo ñu jàpp ay suñuy armée militaire xaw ma ban erreur lañ def ban stratégie euh, euh, euh, les rebelles yi def loolu déjà échec la man noonu laa ko jàppee. échec ci ban côté euh, euh, armée bi si si si. armée bi. ma wax armée bi quoi. doxalinu Sénégal si. Euh, relation Sénégal relation mhm. Sénégal ak Gambie. Mhm. parce que man tey lii duma ko jiiñ Gambie. Mhm. duma ko jiiñ armée bi ñi ma ko jiiñ mooy la Gambie. la Gambie man Gambie laa ko jiiñ. parce que yaakaar naa Gambie bu fekkoon tey ñoom dañoo. solidaire mm-hmm. ñoo soli soli solidaire waruñu nangu waruñu nangu di dem di may Salif Sadio loo xam ni eggu foofu Salif Sadio lii la bëggoon te am na ko mooy àdduna bi xam ko mu ngi dund. Mhm. am na li mu mun. Mhm. il faut ñu ñëw table de négociation. te eh, négociation quelque chose qui l'a permis de faire ça mooy que am na doole. amu fi ah non xam nga doole man. semblant day def semblant am na doole. day def semblant parce qu'on se rappelle que munitions yu bëri jëlee nañ ko fa. seen i ah. base euh, ak ay tool base rebelle yu bëri. sànq wax nga ko yamba bi ñu doon dundee ak tool yi. la nañ ko lu ñu ñaan président Macky mhm. ñun waa Casamance lu ngay ñaan waa mm. Sénégal. Mm. il a beaucoup fait pour la Casamance. Mm-hmm. ñaan nañ ko loolu euh, mu nekk finition. Mm-hmm. loolu pour la na fexe. Mm-hmm. teg loxo Salif Sadio en vivant loolu ndam gën a ko rëy Salif Sadio tamit na xam ni. avant qu'il sera trop tard. mu ñëw se rendre. mais li nga koy non parce man Casamance laa dëkk. fa laa jógee fa laa defee campagne. rébellion ça n'existe pas muy ñii dem di attaque. amatul. Mhm. mënatu koo def. kon da nga bëgg wax ne banditisme moo fa des. non bandit boo demee Kédougou nga dem Géej banlieue loolu moo fa am. Mhm. mais tamit loo gis tamit am na ñoo xam ni si la ñuy dund. Mhm. am na ñoo xam ni ñu ngi souhaite président. rébellion bi la ñuy dundee. business bi ñuy wax kon mi ngi si biir ba si bois bi ak yeneen te loolu président en mm-hmm. tant que euh, un homme d'État mm-hmm. ancien premier ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur mm-hmm. yoonoon franchement parler Casamance amul rébellion te mënutul am rébellion Casamance yëpp ñu ne bi président Macky Sall moom moo tax ça ne juste donc na xam lu muy def pour finir ak ça parce que Casamance franchement parler ñun tey sant yàlla bu baax ku dem Casamance démb ak Casamance tey ça fait deux quoi. waaw li li ñu doon ragal rek hmm. moom moo di est-ce que nekkul woon benn stratégie boo xamante ni. dañ koy faral di gis ci rebelle yi euh, dañuy def stabilité euh, def que ni lépp jeex na fekk ñu ngi lal seen ay ay pexe piège yoo xamante ni dina tax ñu ñëwaat en force loolu la Sénégal di ragal tey jii ne lii est-ce que du benn pas bu njëkk bu ñu def. gis nga rebelle yombi lu ñu defoon bu ñu defaatoon noonu maîtriser la Gambie maîtriser bi bissau moo tax mm-hmm. président Guinée-Bissau mm-hmm. Omar Sissoko Embaló maa ngi koy remercier di ko féliciter au passage mm-hmm. xam naa bu baax fi may wax Casamance laa dëkk le gars il est fidèle et loyal au Sénégal et au président la République Embaló Embaló César Atou Badiane boo xoolee Casamance deux bases camp ñoom ñoo fa nekk César Atou Badiane nekk fële to Guinée Bissau Saliou Sadio nekk Gambie César Atouba Diatta mënul def dara tey mënul def attaque mënul jënd. d'accord ndax foofu donc Gambie aussi nañ def pareil. Mm-hmm. Gambie nañ xam ni Sénégal bu am lay jàmm ñoom duñ am jàmm. on que da nga xam ne y a des tout. non mais c'est ça business bi c'est-à-dire bi. Mm-hmm. nañu waxante dëgg rek. Robert yi dañ siy am ñi leen di bàyyi camion bi jàll ñi siy am mm-hmm. ñiy woote di xool yoon bi dañ si lu nag moom moo dul yoon quoi. mais qui est que ça peut bien être ñan la war a mën a doon. mais ñoom la entre Sénégal ak parce que la jàpp ne lépp Gambie la. mais ñan ci biir Gambie xanaa doo ma ne Adama Barrow déjà mi sañu ko. xanaa kon du armée Gambie du Barrow xam nga comme li ma la wax rek foo dem munoo xam ñëpp. dëgg la contrôler mhm. am na ñoo xam ni ñoom loolu la ñuy jàppee. mekke mhm. camion bu ne am na foofu xaalis loolu. mënoo leen contrôler quoi. de mais ñooñu état bu si jógee Sénégal ak Gambie lii jaar na sax. ñu woote conseil national. à sécurité. Gambie toog Sénégal toog Guinée-Bissau toog. d'accord tant que aussi nu ñuy euh, arrêter trafic. Euh, bois bi non kii bi. bi yamba bi. Mhm. Mhm. arme bi. Mhm. tant defuñu loolu tamit ak lii et ça va continuer. ça d'accord voilà donc. Euh, euh, voilà mi ngi noonu xam naa dinañ ci gën a xuus ci ci ci ci yeneen. wàllu waaye ay point moom ñu fi indi bokk na ci nga nekk euh, ca ñi samp APR. ca foofe ca Bunkiling euh, di fa yëngu waaye tamit ñu gisoon ci li nga xamante ni moom moo di euh, euh, local yi daanaka def nga ci ay sorties ginnaaw bi nga xamee ni président Macky Sall moom la ñu gisoon mu choisir ki nga xamante ni moom moo di Benoît Sambou mu doon candidat ba ci Ziguinchor mais Yewwi Askan Wi moom moo ko ci mujjee jël mu di Ousmane Sonko tey jii gis nañ ko bërki démb ñu ngi ko doon installé mu nekk defet boo xamante ni su ma lay laaj ndax euh, daf leen bett wala bettu leen. non man soo gisee ma def sortie mm. mënuma comprendre ni président ak li mu investir Casamance. Mhm. ak li mu def Casamance yëpp. Mm. Mhm. fu mel ni Ziguinchor. Mhm. xam nga Ziguinchor ne représente pas la Casamance. wante mm-hmm. loolu tamit communication bi il faut mu leer. Mm. ñu bëri dañoo yaakaar ni Ziguinchor. mooy Casamance. wala ko Casamance dafa am trois régions am neuf départements. Mhm. mais Ziguinchor dafa am solo si Casamance. électorat bi mag dafa am électorat la bi daanaka bu ñuy wax ci wàllum électorat. ah presque ma ne mooy poumon bi ci wàllum électorat. région bi mais boo boolee Sédhiou ak Kolda ça fait trois fois. Mhm. trois quoi mais man li ma métti mooy ñoom responsable yi nekk Ziguinchor ak entourage du président. ku mel ni Baldé Abdoulaye Baldé mhm. depuis 2012 2014 mhm. mhm. mu ngi ñëw accompagner président si Benno Bokk Yaakaar mu ngi def liggéey bu rëy foofu ku mel ni Doudou ñëw di def lu rëy foofu moo xam social moo xam yeneen Benoît Samb muy liggéey moom tamit ñoom trois bu ñu toogoon ku ne bàyyi intérêt personnel. Mhm. bu gis président si Ziguinchor mënoon nañ gagné. xam na comprendre. ci fan fi ma ko teg mooy. Mm. politique ku ne xam nga li nga attan ku ne xam nga li nga mën. Mm. xëccoo moo indi la xëccoo moo président lu xew Ziguinchor moo xew lu bëri fépp Benoît Sambou il devait pas être le candidat de Benno Bokk Yaakaar à Ziguinchor. Ah un amul poids bi amul les moyens. vraiment tey ku mel ni boo jëloon Balde. Hmm. ak Doudou Ka nga boole leen ñu dem. billahi on va gagner xool rek boo noo Benno Bokk Yaakaar li mu am ak eh, Balde li mu am boo leen boolee Sonko li mu leen di rawee du bëri. mais 12 pour cent la am. te bu den moo gën a am lu tuuti ci territoire bi. mais loolu la parce ñoom. parce que ñoom dañoo gëmloo président. Macky pour gagner Sonko il faut on Joola il faut Joola et ah boo xoolee Macky teg choix am. lañ ko gëmloo. lañ ko gëmloo. moo tax ñu indi Seydou Sané Benoît Sambou c'est les Joola les deux sont indi euh, Sonko ak l'autre la kon da nga bëgg wax ay question de. mais loolu lañ gëm xoolal ko président il faut ñu comprendre ni il faut ñu comprendre ni Ziguinchor commune wax ma àll ba rayon commune waaw mun nga faa juddoo màggee fa yaroo fa te doo dëgg ji doo dëgg joola xaw ma ndax xam ngeen euh, histoire Ziguinchor mun nga foo juddoo màggee fa yaroo doo dëgg mm. mais munoo fa juddoo fa maggee fa dëggoo olof mbaa soose mais Macky Sall lan moo war a mën a pousser ci question de choix boo xam ne. xam nga da koy wéet ci ay question ak. am am am na yoo xam ne donc moo tax ñun ñiy def sortie pour président xam xam naa xam na il est informé bien mais tamit élection du caaxaan. c'est vrai élection du animation du campagne ku mel ni élection caaxaan bu ñuy dem ba def ay choix nañ def ñan ñoo war a dem Benoît Sambou il a tout fait. man xam naa ko il a tout fait mais mënatul bul bul ne rek man maa fi nekk maa fi nekkoon maa indi partie bi maa non c'est pas comme ça. mais est-ce que est-ce que Doudou Ka également il est le bon choix. parce que tamit euh, bu ñu xoolee ci ay doxalinam quand même il ne fait pas le poids. non devant quand même bu ñu ko jong bu ñu defoon mu jongante gis nga nit gis nga nit da ngay wax dëgg te yàlla tax. Hmm. Doudou tey APR Ziguinchor. man duudu xam naa ko bu baax avant may xam duudu Benoît Sam laa xam ndax Benoît ñoo sànkindoo APR ñoo créendoo APR mhm. ñoo yóbbu APR Casamance xam naa ko bu baax mhm. def naa Ziguinchor def naa politique Ziguinchor xam naa Ziguinchor bu baax mais duudu kaa bi mu ñëwee si la affaire yi changé quel que soit alpha nangu na nii xale la boo xam ni bëgg na politique bëgg na Casamance am na xam-xam yàlla tamit may na ko am li mu yor Doudou Ka il était la seule personne boo xam ni moo yoroon partie bi di def animation donc kooku soo ko boolee ak le maire koo xam ni moom mooy Baldé Ablaye Baldé nga def leen kii nekk commune ci dem le département waa nekk coordinateur wala leneen ça peut passer mais léegi ñoom bu bu bu ñu ne président non non boo jëlee Doudou du dem boo jëlee Baldé du dem léegi kan mooy dem ñoom. amuñu xaalis amuñu nit. mais li ngay wax ni ci benn côté Doudou Ka pouvait être bel et bien candidat de Macky Sall. mais nee nañ comportement am. comportement am bokk na ci lu yëpp di ni mel parce que bu ñu dégloo benn benn Benoît Samb bu wax catégoriquement que ni Doudou Ka dem sax bay saaga ndey Abdoulaye Balde. loolu bokk ci choix yi nga xam ne parfois moo yóbbee Macky Sall ba mu jël choix am. teg ko ci Benoît Samb. loolu aussi est-ce que nekkul question de comportement bu indi problème xam naa Doudou xam naa xam naa xam naa Doudou. Hmm. Benoît Samb élection yi ñëw yëpp moo koy jiite xam nga man Ziguinchor sax sama yoon nekku si Fela nag Sédhiou mais soo gisee ma siy wax dafa maa métti cest à population bi boo xoolee Benno Bokk Yaakaar. Hmm. ak Balde ñoo fa ëpp. mais frustration moo tax ñu perdre rey commune de Ziguinchor. pourtant moom nee na moom ci jëm boppam pourtant dagguma la mais moom ci jëm boppam. kan nee moo jël audio bi Doudou Ka saaga. Abdoulaye Baldé na ko teg audio boobu bu euh, amoon. tas nañ ko Sénégal yi waaw nee na moo jël audio bi. transféré ko Macky Sall loolu moo indi choix wu. xam na ni Macky Sall du ko tontu. moo tax mu wax loolu ojo boobu su amoon pendant campagne bi da ngay dégg gars yi jëndee ko tasaaroo ko. mais amul. mais qu'est-ce qui a empêché. ñoom Doudou Ka nekk ñoom ñoom seen diggante. li ñuul si son bi lan la. non cest à hmm. demul sax euh, nañ ko waxante également Doudou Ka au moment ba ñuy amal lii di vote dafa déclarer clairement que ni du soutenir Benoît Benoît Sambou ci Balde lay dem. loolu la war a def. lu tax parce que ah politique dafa am ay réalité gis nga man. Hmm. bunkile fi ma dëkk noonu. Hmm. bu fekkente ni dañ maa bëgg minimiser joxe ay fausses informations président la république. sans ñi déggul ma trouver consensus waxtaan du ma leen wax dara dama leen wone nii li ngeen dogal ci bale ba pale ba ak li nekk si base ba ça fait deux. mais da ngeen am kilifa te seen kilifa mooy Macky Sall. mais dañ koy jox fausse information. bu ñu a bu topp Benoît Sambou du am dara. booba mais ngeen def ko xool ba xam parce que Macky Sall loolu. mais def nañ ko 2014 ah, non non 2014. Mhm. pareil 2014 Benoît Sambou bii mooy trois fois muy muy dem. mus mus mu musul ci gagné. ce qui a été réalisé 2014 ou 2022 c' est pas la même chose. non y' a des améliorations est ce que jàppoon ne moom. bu accepté woon la décision de Macky Sall. rangé wu derrière Benoît Sambou. mënul ne moom ak lu tax loolu. parce que da ngeen déggul ndigal. non du noonu ñin président dafa santaane. Euh, kii dem Benoît dem. Benoît Sambou bi mu demee élection. fi mu njëkk def. Euh, erreur mhm. cest waa dire boo noo nangul leadership am Doudou Ka Ziguinchor ku Doudou wax rek dëgg te yàlla tax cépp kuy politicien Ziguinchor moo la ëpp nit lu muy rassembler si nit si këram si koñom si biir Ziguinchor amul kenn koo xam ni mun nga ko am na dayo bi am na tamit moyen bi te politique ñaar la ñaar yi la politique su ne politique dañ ne base la ak lan les moyens tey Benoît Sam quel que soit Alpha bu fekkente président sax neewoon na ko jëlal damay jël Seydou Sané. Hmm. ak euh, Benoît Sam moom dafa ne président non Ziguinchor on peut pas gagner sans Doudou le temps day minimiser ni amul dara kenn gëmmu ko kenn kii. xam nga c'est faux moo la ëpp information biir Ziguinchor parce que am na ay renseignements généraux et tout. non xanaa am na yenn décision yi bu koy jël. wax dëgg yàlla am nag fu mu ko. Doudou li mu def Ziguinchor man li mu def Ziguinchor Casamance bi mu sosoo ba tey laa wax de. amul benn leader politique bu ko def duudu laa gis sa commune sa commune mu génn ambulance si fond propre am ko joxe ko ñi jógee foofu sac AIC sac groupement chaque jeune mu fexe am financement fexe leen accompagner leen mais saa loolu nit mënul liggéey loolu. pendant des années mais tout ça il l'a eu grâce à Macky Sall. mais est-ce que sax nag loolu muy wax noonu tax na ba élection yu ñu weesu. mu am loo xamante ni wane na ko ci ba ñu war ko mën a jox confiance ci euh, euh, élection yi nga xamante ni wuute na ak yu bëri ba ñu war ko mën a jox confiance teg ko ci parce que bu ñuy xool tamit euh, Doudou Ka wax naa ko sànq am na gox yu bëri fii. Mhm. lan lañ doon bàkkoo li ma leen defar li ma leen defar mais ba jot vote euh, jotee euh, dañu def seen choix est-ce que du tey ji problème de choix moom moo posé wu woon waaw pas de laa lay wax choix wu population bi laay wax non choix population bi laa lay wax cest à Sénégal yëpp dañ doon xaar Ablaye Balde ak Doudou Ka que Balde mooy le maire réalisation yi mu def expérience yi mu am boo ko boolee ak Doudou mhm. mun na ñëw gagné. pourtant jàppale na Balde te teewul Ousmane Sonko daan na ko. ah. pourtant jàppale na Balde te teewul Ousmane Sonko gagné na ko. jàppale ko de. Ah. jàppale ko. Ah jàppale mooy campagne nga dem battre campagne comme Benoît Sambou bi bi muy bu muy defar liste bi muy defar liste. Hmm. dafa jël nit Doudou Ka yëpp hmm. mu jël ay nitam. def leen Doudou Ka boo xoolee campagne bi yëpp defuloon campagne dafa xaar ba di dernière soixante douze heures bi ñu xoolee sondage bi serré na entre Balde ak Sonko si lañ ko demandé pour mu dem soutenir. parce que frustration moo ko jàppoon. non c'est pas frustration sa waaye doo dem liggéey koo xam ni yëgu la respecté wu la nga bëgg jël sa doole sa alal sa lépp def ko. man li ma moo amul woon considération si Doudou mais foofu et c'est un parce que c'était son choix mais gis nañ ni respecté wu ko parce que lu ñu mënti am itam foofu ci Ziguinchor moom Doudou Ka lañ dénkoon lépp lu jëm ci doxalinu élection wu Benno Bokk Yaakaar. mais si wax si wax dama ne Benoît Sambou. Mm. moo mosul accepté Doudou. te loolu tant que mu ngi ko ah Doudou Ka lan lañ ko faloon. non coordonnateur yi moom moo yoroon coordonnateur coordonnateur boobu ah, amul sens coordonnateur boo xam ni yow coordonnateur boobu le candidat bi euh, du la woo du la du la hmm. amul sens Boniwa Samb waxuma li may wax du samay kàddu hmm. kàddu waa Samb la hmm. moom ci jëm boppam moo fal Doudou Ka pour mu nekk coordonnateur départemental bu Ziguinchor mënu ko fal nee na ci beneen wet mënu ko fal moom moo ko wax xam nga lu wax la waaw noonu man dama lay waxal li mu wax pour nga indi ci ay leeral ci geneen wet seen liste yi ngeen di confectionné nee na moom ci jëm boppam sax c'était tout un problème ak ñi mu àndal pour ñu mën a teg gët ki nga xamante ni moom moo nekk Doudou Ka te nee na à ci lañ xam que ni bu ñu seetaanee Doudou Ka dina def ay liste yoo xam ne ñoom dinañu am sabotage ndax bëggul woon moom mu nekk candidat loolu moo war a à la fin presque ci la doog a teg gët ki nga xam ne mooy Doudou Ka pour ñu mën a confectionner des listes. xam nga alors est-ce que c'est pas un peu contradictoire par rapport ak li ngay raconté. sortie boobu mu ngi koy def trois jours avant les votes. tout à fait defee sondage xam na ni day daanoo mais bon Benoît bi mu xamee nii day daanu wala jël risque. Mm-hmm. war na am courage gis nga tey ñoom Baye Ndiaye ngi nii ñoom Amadou Ba ñeneen ñi. Mm-hmm. dañoo am courage ñu ne président bàyyi diw jiite. Mm-hmm. mais lu ñëw nga ne yow la ba pare bu fekkee ne sax moom dañ ko jiital mais Seydou Sané la la def affaire dangay wax dëgg rek yàlla tax waa man waa ji xawma ko. Seydou Sané neex. xaw ma ko nee nañ moom moo moomu nag moo enregistré Doudou Ka muy saaga Abdoulaye Balde. Oh, kooku nee naa la waajooju ban xaw ma ko parce que rek dafa yor Casa Sport. Mm-hmm. Casa Sport jël coupe bi. ñu ne waaw indi présent tey ci boo ko jëlee donc yooyu. Mm-hmm. moo fi war a jeex. Mm-hmm. gis nga Doudou Ka ma xamal la benn affaire. Mm. booy wax rek te yàlla tax li ma lay wax nii. xam naa ko ndax Casamance laa dëkk def naa Ziguinchor xam naa Ziguinchor. Doudou munoo def munoo wax parti pour mu am doole Ziguinchor rawat na Casamance nga ne sans Doudou Ka mhm. Seydou Sané ngi wax ni xaw ma ko nekkul APR tekkiwu fa lu bari daal nga non bu fa tekkee tamit man xaw ma ko musuma fàttaliku lan la def APR quoi mhm. donc loolu nga jël ko nii rek parce que ay mbokk ngeen ay xarit ngeen nga ne noo président kii nit ñi xam nañ ko nit ñi kii non mais loolu. mais mais mais dafay mel ni su ma lay dégg euh, c' est comme si que moom euh, dafa def abus pouvoir moom moom moom moom moom Doudou Ka moom moom Benoît Sambou ah, en tant que mandataire bu mu ah. doon euh, ngir jublu si dem rallier ak je je peux les appeler des transhumants au détriment ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci coalition bi non cest dire Benoît Sambou sax li muy def moo gën a garaaw sax loolu. Ah xaw man bono bokk na si ñoo xam ni Casamance fu bëri Sénégal lis parallèle bi bëri parce que xam nga bono sax mooy suñu mandataire. Mm-hmm. maanaam moom mandataire fëy la boo xoolee bon tuuram moom moo fi nekk. Mm. moo fay signé c'est-à-dire bono mm-hmm. cinq cent cinquante sept commune mm. xam na kan lay jox mandataire ku ne moom moo lay woo. Mm. tey man. Mm-hmm. Bounkiling il a juré il juré que tant que moom il il est mm. man du ma mus a nekk mandataire parti bi. à Bounkiling. yow est-ce que loolu la naqari mm. xam nga lu tax. man j'ai pas besoin de man dama am sama base te su may falu tamit sama base moom moo may fal mais loolu c'est pas important xam nga lan moo am solo mandataire bul ko jàppee ngànnaay. di ko xeexee Babacar. Hmm. neexuma non non non keneen laa koy jox. ma xam la lan lañ def euh, Goudomp. Hmm. le maire de hmm. mooy suñu maire. Macky dafa ne maire yi la ñuy. reconduire reconduire. le maire de Goudomp jiboowul ak Benoît Sambou y a un certain Ndiaye. kooku woon. Ziguinchor mhm. mu waxtaan ak Bono bu Djibo mu ne ko demal milité ji Goudomp man dinaa la jox mandataire si tour parti bi maire bi moom moo xam fu muy jëm mhm. xaw ma ndax xam ngeen bu baax. <laughs> mu jël mandataire bi. Mhm. jokkoo waa ji. wala ko dans les normes. maire bi moo war a nekk mandataire Benno Bokk Yaakaar. Mm. finalement maire boobu jël mandataire bi maire bi maire Goudomp bi jël beneen liste mhm. dem liste parallèle gagné waa ji ñëwaat boo paree ñi bugg gëm la nit ñi président moo ne nañ jox mandataire mhm. waa ji. li ngeen di wax ni yëpp est-ce que nekkul wut excuse rek te doo leen nangu une bonne fois rek que ni waa ji bari doole mooy Ousmane Sonko est-ce que doo leen nangu loolu benn yoon. non bañ a wut excuse di jaar ci. non man fenêtre parfois man man Sonko bugguma sax di wax si moom. mosuma wax si moom parce que man su may wax si ay su may wax si Casamance ni ma bëggee Casamance ni ma gëmee Casamance damay wax ay nit ñoo xam ni c'est des Casamance yi. Hmm? dañoo gëm Casamance dañoo def lu ne pour Casamance ñëw ñu politique Casamance pour venger wu politiquement wala pour de règlements de compte wala pour. lakkatu. loo jàppee loo jàppee le fait que mu mu mu jël maire bi tey ji vengeance. ci ci lan non du vengeance foofu sax sori na. waaw Sonko man ba tey considéré ma ko comme un Casamançais Sonko. mais moom la Casamance yi wóolu. non bul wax Casamance pour pour lan nga ne. bul wax euh, pour lan il n'est pas originaire de la Casamance wala euh, tu es beaucoup plus Casamançais que lui. Sonko gox. Hmm. boo fa dëkkee gox. boo fa dëkkee da ngay dagg dëgg seen làkk nga dëgg la làkk. ce n'est pas une obligation. non dëggul ma rek may ma ah, Sonko ah. Sonko il est né à Thiès grandi à Thiès ba 2014. Sonko boo boo ko ne Casamance da ne carrément moi je suis boy koo xam ne yow nga ne. Hmm. da ngaa bëgg leadership. Mhm. en Casamance mhm. yow mhm. waa Ziguinchor xamuñu la mënoo làkk joolaa mënoo làkk soose mënoo làkk pël amoo benn ami ami d'enfance yow ah xamoo sax mënoo sax cité trois quartiers yow benn ay AIC du taxaw mu ne la diw ba ñu nekkee nawetaan diw moom moo jëndal mayo déedéet da xaar ba nga nekk si dans règlement des comptes difficulté nga ne déedéet kees à l'époque là ñemewul dem Kees mu dem Casamance commencé ko fan bi Bignona jógee Bignona mu xam ni non non stratégiquement Bignona dafa tuuti bàyyil ma dem Ziguinchor man moo tax suma moo tax défaite Cas défaite euh, Ziguinchor bi metti ma trop parce que population yi bu ñu demee ba xamuñu fan la ñu war a voté moo tax ñi dem voté yeew mais mais yéen yéen loolu moo leen rey ah. le fait que depuis mu mu déclaré candidature am bi ci. pour jeexal ci ci ci Ziguinchor est-ce du loolu moo tax ngeen nërmeelu parce que élément yi nga fi cité tamit nag du base ngir ñu war a mën a bañal koo xam ni doomi Casamance la. bañal ñu ko. bañal ñu ko non bañal ñu ko nee da koo bëgg mbubboo aatimoo ko. waaw mais heureusement heureusement. mais dëkk ci dëkk bi njëriñ dëkk ba ñëpp dag la njëriñ daanaka xanaa heureusement heureusement ah. comprendre nañ ko. moom normalement sax ñaar département la waroon am mooy Bignona <laughs> ak Ziguinchor mm-hmm. Casamance neuf département moom moo fa am mm-hmm. neuf département yëpp si si yëpp Benno Bokk Yaakaar moom moo ko gagné mm-hmm. deuxième liste parallèle yi ñoom ñoo fa gagné troisième PDS moo fa ñëw Yewwi Askan bi dans les six départements mu ngi ñëw si quatrième position mais l'essentiel c'était Ziguinchor. non c'est pas Ziguinchor c'est presque la même chose aussi pour yéen. non xam nga man man man nga baal ma mais su ma lay dégg day hmm. mel ni ci gént nga nekk ba léegi nii. Hmm. parce que mënumaa comprendre tey imaginer hmm. yaa ngi wax benn Ousmane Sonko boo xam ne tey. benn bu ñu xoolee élection présidentielle yi ñu weesu ci 2019. dafa ñëw cravache. ñu ne avec le temps mu promettre que ni il va faire plus. Hmm. démonstration boobu moom la réussir. waaw bu fekkente ne gat waa waaw bàyyi ma yeggali. Hmm. bu fekkente ni dafa nekk koo xam ne dafa ñëw dëkkaan si. Hmm. wala mu ñëw wàlliyaan si. am réussite bi ni mel. kon est ce a a daanaka amul loo xamante ni jëriñ ngeen ci réew ma ba tax na ñeen ñi jël choix bi def opté ko ci moom. moom tey moom tey daa waroon bakku mu ne maa gagné Sédhiou maa gagné Kolda maa si mbokkom yi la gagné c'est normal. Ah. da ngeen ko bëgg def affaire de xeet. non du affaire de xeet moom loolu la ko jàppee cest nit da koy jàppee nu mu ñëwee. mais dégg ñu ko mu def ah, déclaration ne ay mbokkam moom moo ko. mosuñu dégg mu wax si loolu la wax moom kaas moo tax sax moo tax sax mu ne dafa bugg dem rek maire de Ziguinchor bu fekkee moom day incarné. Mhm. au mhm. a dëkk euh, voilà. Mhm. foofu foofu la dëkk mënoon na ne man de damay candidat pour la mairie de Dakar mais man dam lay xamal cest à Casamance mënoo ko mbubboo politiquement ñin gis nañ fi. Mhm. ay ñoom Landing Savané ay ñoom Assane Seck ñoom Ablaye Baldé mhm. ñoom euh, euh, Ibou Diallo mhm. ñoom dañoo def politique ci Casamance am fu ñu yóbbu Casamance am rôle bu ñu doon jouer ci Casamance am niveau diplomatie buñ ñu doon def Casamance mais par rapport les gars la moom. Mhm. man mënoon naa ko topp. kan jeune bu toll toll toll ni man mënoon naa kii de Casamance la am na xam-xam xale la am na vision mais day tricher. dugul politique bari na yu ko topp moom tricherie bi ci naka. da koy mbuboo Sonko mooy seul seul leader ba kaa fii. Mhm. Sénégal yëpp koo xam ni day toog mu ne leen eh, rébellion yi dama leen nekk nañ teg arme six mois su ma ne ngeen yëngatuwaat ngeen yëngatuwaat loolu xalifa Sall. kan moo wax loolu. wax na ko. moom Ousmane Sonko. waaw oh, Sonko keroo bi muy jógee ñu bàyyi ko. Mhm. mu dem këram. Mhm. def kii nu déclaration bi mhm. dafa ne rebelle yi maa ngi leen ñaan mhm. ngeen teg arme bi ñu teg ngànnaay six mois bu dara ci mais vidéo vidéo yaa ngi ñu teg arme mois noppalu bu dara ciwul ñu ñëwaat c'est-à-dire loolu <laughs> Khalifa Sall ah. sañu koo wax Idrissa Seck sañu koo wax li ngay wax ni Abdoulaye Wade gisuma ko moo ma jaaxal laajal ki dugal sa sa kii bi Sénégal ñëpp noppi quoi tey bu dee loolu Idrissa moo ko wax wala Balde moo ko wax wala Doudou Ka wala keneen nga wax parce que jamono jooju nekk na posture boo xamante ni euh, lu jëm ci jaami Casamance moom waroon na cee wax. en oh. tant que Casamance. moom mënul wax ngir ngir ngir mbir mi daal yéen fu ngeen ko jëlee peut-être nekkul en réalité li mu bëggoon li mu bëggoon wax. te man li ma la bëgg a waxal foofu moom moo di nee nga Ousmane Sonko quand euh, dafa jël mairie bi par dem na tam ba Casamance yi wala waa Ziguinchor votel ko. Ah, parce que xamuñu fu nu jëm. Hmm. mais tey jii. boo xoolee Benoît sàmba mi dëkk ca gox ba. Hmm. nekk fa ay ati at. il ne pèse rien là hmm. te lim nga ni daanaka defalul dara waa Casamance. Hmm. noo mën a comparer ñaar ñooñu. tey jii ki nga wax léegi ne dëkku fa moom moom. moom la moom la jox confiance euh, ah Benoît sax mu tane Sonko. mais mi ngi door a laaj maire bi. non voilà Benoît sax xam nga Benoît sax. nu mu tudd tuuti rappelle des débuts de Ousmane Sonko. def na dara quoi 2014 mais man la fël mun maa comprendre koo xam ni sa waay. dëkkul Ziguinchor ba tey jii ba ma lay wax nii. Mhm. location la jël. HLM Neema benn avocat këram la jël luy. Mhm. koo xam ni nangul tabax Ziguinchor. bañ na sax boo ko ne booy Casamance mu ne non moi ji booy de Thiès jusqu'à deux mille deux deux mille quatorze nangul dem milité ji Sonko benn du benn doom Casamance bu lay wax fii xam naa këram gis nga ñin am na yoo xam ni ñin dañ ko xam dañ ko comprendre moom ba keroo muy bàyyi politique muy bàyyi politique na jàpp entre Bignona ak Ziguinchor électron fa lay yem mais man mënuma comprendre également comme yow ni nga mën a ñàkk comprendre hmm. ni koo xamante ni dëkku fa hmm. defu fa dara hmm. bëggul dëkk ba comment comprendre tamit la majorité jox ko seen kàddu mais c'est normal comment élection c'est raw gàddu moom bu fekkente ne yow bien sûr ñi fa nekk yëpp yëpp yëpp dañu divisé wu nañ wax rek dëgg ñan ñoo divisé wu yéen waa Benno Benno Bokk Yaakaar yéen a divisé wu mais y avait d'autres partis là voilà Abdoulaye Balde mu ko lan moo ko teree gagné. mais mais loolu laa wax ma ne la si choix bi tey bu fekkente jëloon nañ un Doudou Ka ak un Abdoulaye Balde Benoît Sambou ñëw comme mandataire coordinateur ñu nekk benn dem. il vont gagner Ziguinchor. mais dafa am lu muy peser. moo tax mu jiitu mais man man man. fenn laa gëmoon yaakaaroon ni Sonko mun na fa gagner mooy fan bi ñor c'est chez lui. xanaa ku ne 2019 kon dalaa raw yow wala yëgoo li fa xew. si si lan. 2019 waaw Ousmane Sonko wanewul boppam déjà au niveau. de Ziguinchor non loolu laa lay wax ma ne loolu présidentiel la. <laughs> waaw c'est c'est <laughs> normal non présidentiel. 2022 nga ñëw defaat la même démonstration. ba am sax plus nag. kooku nga ne tekkiwu fa dara. dëkku fa bëggul dëkk fa mais comment ça fait que. askan bi dama la ne la Casamance wax ma la Ziguinchor. dama ne la Casamance yow tey mënoo ma wax mais bul tudd tamit Casamance. Mhm. te doo tudd Sédhiou ak Kolda. Mhm. xam nga xam nga. Mhm. communication problème communication bu am. waaw Sénégal pour ñoom boo nekk boo boo boo nekkee Casamance. Casamance c'est limite à Ziguinchor. wala ñi fa ëpp doole. c'est des Joola. wala ko c'est pas mais à chaque fois yéen ngi évoqué benn Joola. Euh, voilà parce que loolu manque de communication la. parce que yow nee nga Macky Sall choix am ci loolu la ko teg. loolu lañ ko teg trompé ko pourtant Balde bu muy ñëw Robert Sagna moom moo nekkoon maire le tout puissant Robert Sagna il a fait 30 ans mais Balde dafa ñëw. avec Abdoulaye Wade. a gagné ko mais léegi pourquoi pas ñoom ñi euh, gëmloo ni pour gagner. te Benoît Sam moo la gënoon xam ni du gagné Benoît Sam même si c'était pas Sonko même moom ak Baldé moom moo mënul gagné man depuis ñi def choix bi laa envoyé mail envoyé message cabinet du président ma ne leen Benoît c'est la troisième Benno Bokk Yaakaar c'est la troisième à parce que score bu gën a bu gën a xam mais 12 musul am fenn lu musul am euh, musul am fenn loolu nag moo tax ngeen war a xam ni l'arrivée de Ousmane Sonko moom moo impacté tey ah, ci taxawaay coalition benn Bokk Yaakaar pourquoi tey mënu leen a def introspection xool doxalin wi te xam ni dafa am benn politique bu yees bu dugg ci biir gox ba euh, également lu jëm ci campagne bi ba mu waree ñu teg ay ay ay euh, lu jëm ci proposer programme askan wi euh, tey gis nañ Ousmane Sonko programme mu proposer askanu Ziguinchor et promettre ay changement du euh, lii mu coow li duggee ci wàllum monnaie local bi au moment où Ousmane Sonko di def démarche yooyu noonu mais yéen a ngi xuloo di di di ŋaayoo di tojante ay bopp ci biir coalition bu bu ñu mel est-ce que yéen woolooti nañu woon yéen politique bi ngeen indi foofu même si je t'entends dire que euh, président def na fa ay réalisation yoo xamante ni waru woon mën a perte no ñun daal de toute façon président moo xam Sédhiou Mm-hmm. région de Sédhiou qui fait trois départements moo xam la région de Kolda qui fait trois départements les deux ça fait trois fois électorat de Ziguinchor mm-hmm. les deux régions sont les titres fonciers du président maintenant pour Ziguinchor comprendre naa man damaa jàpp nii euh, dañoo gëm nii mm-hmm. peut-être dañ ko jàpp comme un balai comme Robert Sagna comme comme Landing Savané c'est normal comprendre baa li ma la wax yaakaar ni waaj ji peut-être président un jour un jour man de su ma leeroon nii billahi wala taala su ma leeroon ni Sonko il sera président dinaa ko jàppale. ah ma leeroon ni Sonko. waaw il sera président de saa li ngay wax ni garaaw na de. dam dam koy jàppale. da ngay jàppale parce que président la ci 2024 euh, ou 2019. su ma leeroon nii Ousmane Sonko. waaw en deux mille vingt quatre. ou dans l' avenir. il sera président ni ma def ba implanter parti samp ko fépp jàppale Macky kon Sonko lay dem. jàppale mais parce que damaa xam ni dugul politique pour euh, nañ koy waxee la. du am politique bu war a réussir. non non dugul politique pour kii. pour nekk président. présidentielle pour def euh, politique gëm na ko. Mhm. Euh, pour conviction. amul benn objectif. amul benn objectif parce que saa waay ma xamal la benn benn ñin. bu ñu nekkee jeune di topp Macky. Mhm. boobu dañoo Idrissa Seck mu ngoon fii Moustapha Niass mu ngoon fii. Mhm. Ablaye Wade mu ngoon fii. Tanor mu ngoon fii. dañoo jël Macky Sall topp ko. ndax lu ñu gisoon si moom. Mm. ak jaar-jaaram. d'accord comprendre nga li tey Sénégal peut-être nit mun mun na nekk def euh, jamonoom quoi mais man dama jàpp ni. Mm-hmm. Ousmane Sonko c'est pas l'homme qu'il faut pour la Casamance te moom sax loolu xam na ko léegi. la jeunesse casamançaise la jeunesse le contraire. xam na ko léegi sax ils ont dit le contraire de ce que mais c'est normal ñëpp gagné bu comme boo demee kees ñu ne Babacar Gueye moom mooy nekk maire. Dakar ne Barthélémy mais c'est normal. mais ñëpp ne nañ combat boobu ñu porté wu au niveau national presque ba ñu réussir ko ci yenn gox yi sax ñëpp jàpp nañ ne parce que c'est l'apport de Ousmane Sonko et ce qu'il pèse au niveau de Yewwi yi dénoncer lui-même parce que euh, Idrissa Seck s'est rangé du côté des présidents tey jii yow nga mën bëgg taxaw fii di minimiser les plans de Ousmane Sonko ses projets et également son avenir dans l'arène politique. gëwuma ko man c'est inexplicable. Sénégal fii lan laa fi gëm bu àdduna di tukki gëm naa ni ku fi doon président de la république. Hmm. da ngay jógee ci famille libérale. Hmm. mbaa famille socialiste. te képp ku bëgg doon président. Hmm. il faut nga adhérer nekk militant socialiste wala militant militant. libéral wala social voilà libéral wala social mun a non te loolu laa gëm. loolu waaw gëm taxul mu sa sa waay <laughs> boobu. moo tax Khalifa Sall ñëw. ñi def euh, coalition. yeew yeew kii nu ñu ko. askan bi mhm. ñi gagné yenn yi. gox yi quoi te man gëm naa ni en deux mille vingt quatre. Mhm. deux ma quel que soit alpha. Mhm. mais xam naa ça sera balota ça sera entre famille libérale et famille sos. socialiste voilà la socialiste. exclure nga ci Ousmane Sonko. da nga ma ko. su ma ko gëmoon <laughs> non non non mun mun na nekk. su ma ko gëmoon. mais Sonko sans Pastef. Pastef amul. non non man mënumaa gëm nii. daf lay wax rek samay <laughs> analyse déet bul dem ah. boo nee Sonko te newoo Pastef wala nga ne Pastef newoo Sonko y a rien là-bas. seen projet c'est Ousmane Sonko. Hmm. c'est lui qui établit l'essentiel moo ko yor donc nga wax bëgg a génnee Pastef ci Ousmane Sonko loolu lu mënul nekk la. saa daal man daal xam naa daal Sénégal daal. 45 hmm. département la. mënoo gagner 9 départements. et 2 départements nga ne 2024. yow yaay taxaw mm-hmm. man li ma gëm mm-hmm. li ma gëm mm-hmm. mooy que euh, Sénégal boobu sax maa ngi profité di lancer appel appel di si njëkkee suñuy président secrétaire général nañu fexe école du parti yi jógaat parce que ñi ngi fooyee loo xam ni le 23 janvier nit ñi bette c'est vrai. Mm -hmm. sur 45 cinq Mm -hmm. nous n'avons gagné 38. Mm-hmm. daf leen bett. Mm-hmm. non daf ñu bett parce que man y a des yoo xam ni mm-hmm. gagné leen. je sais que ay vote sanction te vote sanction baaxul. léegi léegi lan ngeen bëgg euh, Benoît Sambou président Macky Sall génnee ko ci ci coalition bi parce que yéen daf daf leen trahir loolu ngeen jàpp jamono ji. non man. seen position ak Ziguinchor moom sax si Ziguinchor pour ñu ñëw ñu ñëw ci euh, APR dans le cadre général ak yi ci yees. non man bëgg nga dëgg-dëgg. Hmm. waaw man Ziguinchor moom daan siy jëndee sama xel. lu tax ñàkk ngeen ko daal. non ñàkkuñu ko sax man xam naa Benoît Sambou il va accepter il va jamais accepter. bàyyi ñàkk yow est ni da ngay paradoxal daal. man pour man non non man. je me concentre en Casamance quoi la région de Sédhiou. tantôt la de Ziguinchor. non mais l'essentiel Ziguinchor non. man Ziguinchor tantôt tey <laughs> nga ne. Euh, population bi dañoo voté parce que xamuñu ku ñuy voté. loolu laa la wax tantôt nga ne. coalition Benno Bokk Yaakaar ma ne il va jamais accepter. sa xel. Euh, euh, c'est non dama kaa xam. Hmm. c'est-à-dire man tey Benoît Sambou dafa war a am benn grandeur. comme mm, ñeneen yi mm-hmm. ko defee mu xam ni mag la essayé na plusieurs fois mm-hmm. demul na bàyyi ñeneen yi moom mandataire la tey ñoom Benoît Sambou ak ñeneen yi ay mag lañ ñoom tey seen role mooy xoolaat partie bi nan lañ ko mënee jëfee mu jógaat mm-hmm. frustration yi lan moo koy indi animation bi nan lay demee école de partie bi nan lay ñëwaatee. Mm-hmm. mais su fekkee Benoît Sambou en tant que mandataire. Mm-hmm. nationale dafa jël xeexam yëpp këpp ko Ziguinchor entre lui ak. Euh, Doudou Ka. te moom mandataire rôle tey mooy noonu mu dem suñu siège. Mm-hmm. national comme il a tous les contacts et données des gens mu woo leen sax commune. ñu xool ñoom ak ñeneen ñi sax. bari de. entourage bi ñu xool ñoom lan la ñuy def ba li ñuy dal 23 janvier. Mm. élection législative mu ngi ñëw dans 3 mois mu bañ amat lan la ñu war a def 2024 ndax présent dina de candidat du doon candidat loolu mooy loolu moo gën a am importance man Ziguinchor mm-hmm. na ko bàyyi ak Doudou ah. parce que duudu moo ko gën a nekk jeune moo ko ëpp xam-xam nga baal ma mm-hmm. moo ko ëpp tamit am am te nañ te nañ nit tamit dangay ngay wax dëgg mm. quoi c'est-à-dire ñin lu ñuy métti ak présent li mu def Casamance lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp parce que bu ngeen joxoon bu ngeen joxoon cër seen njiit du ngeen am problème bi ni mel lan moo leen tey def comme ni Amadou Ba def il avait des il avait des souhaits pour être candidat au niveau de Dakar Macky na ko noonu kii laa tànn mu accepté ko ñëw rangé wu ci ginnaawam lan moo tax du Ka di teggi ndogal wala di teggi tànk bëgg-bëgg ki nga xam ne mooy Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr est-ce que nekkul loolu aussi moo indi tey seen Abdoulaye dafa Ba campagne bi yëpp jox na ko cëram dem na seet ko. waxtaan ne jox na ko cër mais day fekk tamit nit ki respecté la. Mhm. saa waaye liggéey jàmbur munoo ko def. Mhm. te waa ji santu la ko. Mhm. bugg la ko duudu kaa tamit lu mu muntoon def ba noo samp. moo accepté wul loolu. léegi nag sabang man message bi may. c'est bon bi euh, mooy moom Benoît na xool na xool nan la mënee trouver euh, solution. Ah, solution. Mm-hmm. ñëw toog ci siège bi. Mm-hmm. fexe euh, ak entourage du président. Mm-hmm. nan lañ mën a trouver pour que li ñu dal vingt trois ans bi wax ma la sax Ziguinchor mais ak yeneen. ñu trouver solution quoi. alors gis nañu euh, euh, tamit ci élection yi yaakaar nañu lajjit bi quand même euh, euh, coalition Benno Bokk Yaakaar lajj sur toute l'étendue du territoire national mun nañu kii njiig njaat foofu président Macky Sall moom mooy njaat parce que créé na ay frustré ci biir parti bi ci biir coalition bi waaye tam def na des choix yoo xamante ni d'accorduñ ci ba mu suscité woon ay liste parallèle aujourd'hui alors euh, taxawaay ban lañ mën a def ngir euh, rectifier le tir euh, bien bu ñu xoolee que ñu ngi tendre vers des législatives ak 2024 non man dama jàpp ni boo xoolee sur le plan géographique politiquement. Mhm. Benno Bokk Yaakaar moo gagné. c'est vrai mënoo 46 département mënoo gagné 38 nga ne da perte mais tamit am na li nga wax solo. Mhm. liste parallèle yi dafa sonal appel lu bari loolu yaakaar naa président en république war na toog. Mhm. xool lan moo ko indi. lan moo ko indi. Mhm. ñu essayer trouver mhm. solution solution sinon le lu xew. Mhm. lu xew le janvier. le pire moom moom moom moo nar a xew. voilà donc man. pour pour man. présent dem surtout moment boo xam ni amul jot. parce que léegi dañ ko fal. Euh, Union africaine bi mu war a dem man tey su sañoon. Mm-hmm. président de la république na fexe yaatal secrétariat bi secrétaire exécutif bi ñoo xam ni te nan lañ ko mën a yaatalee Sénégal c'est quarante cinq département mm-hmm. moom mm-hmm. lañ mën a yaatalee secrétariat bi quarante gis si seen bopp te information bi tamit président di ko jot mu bañ a yaakaar ni rek quelques personnes yoo xam ni ñoom ñoo ko wër di ko jox information man yaakaar naa lu indi suñu problème bi yëpp information boo xam ni joxuñu ko. est-ce que du moom la neex en tant que président de la république également chef de parti ñu toll ci jamono joo xam te ni dañ ne bu échec amee ñu mën ko ci joxoñ baaraam tu mooy ñi ko wër joxuñu ko les bonnes informations voilà loolu man jàpp naa ni hmm. du président moo de la république moo xam ni daf jël leen te ñooñu passé wuñu boo xoolee. cette mm. personne. kan ak kan. non duma leen tudd mais ku bokk APR. Mm. xam nga leen pour man loolu dafa tuuti xam nga dafa am politique. am ak li mag am ci ay ministre conseil ci mm. Sénégal mais politique APR ñi koy dogal. waaw même xam nañ leen te man loolu euh, su ma sañoon en tant que ndaw. parti bi en tant que koo xam ni il a beaucoup investi. te mu ngi xaar parti bi pour ay at at at. yaakaar naa président de la république war na jël matukaayam xoolaatal parti bi yaatal secrétariat exécutif bi suñu siège baa ngi nii dañ koo tabax ay ay ay milliards. Mm. yaakaar naa siège boobu warul fa nekk pour vite. meuble comprendre ba voilà meuble. Mm-hmm. war nañu fexe chaque mois secrétariat exécutif bi tase. est-ce que Macky loolu la bëgg. <laughs> parce que moom déjà dafa waxoon chef de parti nekk en même temps aussi président de la république lu muy dindi mais n'empêche ba léegi. man daal jàpp naa ni problème bi xew ni yëpp manque d'information te information président mënu koo am tant que fexul fexeel deful tout bu am contact ak la base. kon kay danga bëgg a wax ne ah, Macky Sall la jël boppam non ko quoi. kon décision yi muy jël li muy jëf ci biir parti bi dara baaxu ci. no c'est bon. ah baax na non man ne c'est bon baax na mais man. sama xalaat. mais fii d'accord leen daal fii. te yaakaar naa tamit. choix yi àndoo ci. non mais parti bi di doxee àndoo ci. c'est ça ba pare nga ne ni muy ni muy palee parfois do àndoo ci. loolu kay mooy doxalinam dara baaxu ci daanaka. non baax na. Mm-hmm. baax na ah, baax na. su su su su ma ne baax na. Mm-hmm. président fu bari liggéey bu bari moom moo koy defal. Mm-hmm. boppam cest dire que il compte pas sur ces gens-là président da gis c'est le seul président. boo xam ni. mooy dogal non non papa dogal quoi chaque année nu mu dee dee dee il va descendre sur le terrain plus de deux fois trois fois te descendre boobu c'est vrai day def visite. Mm-hmm. visite visite visite visite économie mm-hmm. mais aussi day gis euh, euh, réalité bi. parce que dafa bëgg accaparer wu lépp. non c'est c'est c'est pas pour pour pour man erreur daal mooy APR. déjà information du yéeg te loolu mënul yéeg tant que mhm. secrétaire secrétaire mooy mhm. lan lu mhm. ñuy waxtaanee ci parti bi te loolu quelque personnes la ñoom ñooy toog tey mënoo ne quelques personnes yow mënoo ma wax sama gox te man ma gan la ko xam xaw ma na comprendre nga baax may wax pour man tey les listes parallèles yi am na mënoon na ñàkk moom moo ko créé moom président comprendre mënoon na ñàkk bu fekkente ñoom jël nañ seen motukaay bu yàgg woo nit ñi fexe comme gis nga fi euh, en 2014. Mhm. de de de 2014. waaw président la la def dafa bàyyi ay ay missionnaires. Mhm. ñoo xam ni dañoo dem chaque département. waaw chaque commune. foo xam ni am na deux candidats trois candidats ñu toog waxtaan boo kenn bàyyi. Mhm. kenn topp mais bi yoon loolu. amul quoi te ragal naa aussi lu ñu defoon 2014 hmm. par exemple bu fexul defaat même même même même sanction bi mu hmm. amaloon 2014 ngay wax wala sa ça va en 2014 hmm. tey nañu ki la gagné pour man de résultat 2014 moo gën a ba gën a baax saa bi fan <laughs> waa mais yow tamit nag 2014 presque ñàkkoon seen ay gox ñu ci bare bari. président de la république non loolu non loolu du sanction politique. moom moo de. non mais sa non mais. yow mënoo gagné mm. mënoo gagné man ma perdre. Mm. yow nga bëgg man ma dem. non mais est-ce que non mais est-ce que dañ lay pal parce que da nga gagné wala dañ lay pal parce que da nga am ay compétence aussi. non loolu c'est vrai. mais mais mais voilà. non de de de d'accord mais man politique récompense la. Mm-hmm. ah politique. récompense la yow tey boo amee xam-xam am base man yaa ma ëpp xam-xam yaa ma ëpp base man war naa nangu mhm. nekk sa sa alors nan naka gisee tey dafa mel ni président Macky Sall mi ngi taxaw taxawaayu nekk ci jeu politique recomposition sax mën nañ ko wax on a vu hier euh, Bamba Fall mu def ko conseiller euh, ca wetam loolu naka nga ko jàngatee ndax lu mën a apporter coalition bi la ak APR wala bokk lan lañ koy mën a jàngatee non man ñëw Bamba Fall APR rafet naa ko quoi ndax mhm. politique moom mhm. euh, da soxla ay nit rawat na dakaar boo xam ni boo xoolee euh, gàñëwuñu fii benn ville bu mag ville mhm. ñi Dakar 2014 benn ville lañ gagné mooy Yoff euh, si lañ indi Aliou Ndoye ak maire de Grand Dakar te ñooñu élection bi dañoo gagné Bamba gis nañ ni élection yi àndul ak Yewwi àndul ak waa benn Bokk Yaakaar mu gagné moom nee na dafa ñëw pour jàppale président pour intéret de Médina mm-hmm. mais loolu baax na mais léegi ñëw Bamba Fall tamit warul tax ñi nekkoon APR waa APR yi nekkoon. Euh, euh, Médina Med Med Médina ñi. fàtte leen. fàtte leen wane leen non liggéeyoo leen Bamba Fall même mais sinon man suma sañoon. suma ma sañoon ah, je ah, sañoon maire yi bëri dañuy ñëw liggéey ak euh, président. après bu leen neexee élection bu jetee ñi dem. sañoon mais man ñëw ñëw. Euh, Bamba Fall. Bamba Fall dara Macky Sall. mais ndax léegi ne ko apporter tey dara moom je sais mais bu fekkente ni Medina na si gisee boobu kay baax na. mais est-ce heure bi mu ko defee heure bi la parce que ñu ngi xaar mu mu premier ministre am bàyyil ñu ko fi def def remaniement bu yees mais mu indi ñu benn ministre conseiller tey bu ñu defee jàngat loolu lan la mën a indi ban changement la mën indi wala ban lan la mën a yokk ci li nga xamante ni saafara lañ koy mën a tuddee ci euh, nu mu ko waxee sànq question questions de l'heure sont là euh, bu ñuy wax ci dund bi bu ñuy wax ci liggéey bi entre autres gouvernement bu yees bi ñu koy xaar ngir mu mun a solutionner ak lii taxaw dara demul lan lan lan lay mën a doon est-ce que heure bu baax bi la. wala est-ce que comprendre na réellement la sanction bi nga xamante ni nekk na ci moom. non man xam nga président moo xam man damaa jàpp ni président il est plus politique que moi moo ma dàq politique moo xam lan moo tax mu def ko. ministre conseil. Mm. bokkul ak gouvernement c'est-à-dire conseil des ministres. Mm. ministre conseil siégé ah. léegi man lan moo tax mu def ko ak heure bi nii bi mu ko def je sais pas xaw ma lan lan moo ko mais man maa ngi xaar gouvernement boo xam ni Sénégal mun nañ si gis suñu bopp mm. premier ministre boo xam ni mun nañ si gis suñu bopp mm. mu doon pol premier ministre boo xam ni tamit ndaw yi tamit dinañ si gis suñ suñ bopp. xam nga ñu ci yaakaar politique de jeunesse daal nga. politique de jeunesse am ci yaakaar. am naa si yaakaar. Mm. parce que am naa si yaakaar élection bu ne élection bi président jàng na si euh, bëri bëri mm. mais man daal li may xaar. Mm. nomination yi may xaar. ak ministres yi may xaar. nañu fexe euh, euh, nañu répondre si si demande sociale yi mais tamit jeunesse bi fu ñu leen di xaaree. yaa ngi xaar Idrissa Seck dugg ci wala bëgg nga ko. non man moom bugg ngaa dëgg-dëgg. waaw euh, alliance yi baax na trop. waa mais président il est temps aussi. Mhm. mu gëm ñi mu àndaloon. te yow yaay rafetlu ñëw Bamba Fall. non c'est normal nee naa la politique moom. Mhm. ku ñëw rek baax na. gis léeg-léeg paradoxe ay waxam. non man mënu ma comprendre li muy wax parce que yow déjà yaa ngi rafetlu ñëw Bamba Fall nga ñëwaat léegi waxaat paradoxe. beneen ne yow jot na Macky Sall Bamba Fall on est faible à Dakar. non déggul ma baax. Mm-hmm. ma ne. Mm-hmm. Bamba Fall. Ah. na ñëw baax na. Mm. xam nga Bamba ñëwul. Mm. dégguma ko mu ne dafa ñëw benn bokk yaakaar moom ki waxam tey laa ko ah, dégg. mu ne waaw bon bu rallier tamit wax mais man li may xaar. Mm. gouvernement bu bees bi na si Sénégalais yi gis seen bopp na si jeunesse gis seen bopp. te mu doon gouvernement boo xam ni aussi franchement. tat day dellu ci ñi mu bëgg wax. non li nga wax moo am moo am contradiction te man moom laa mënul comprendre mënul jël mënul jël c'est sûr que am na ñoo ñoo ñoo ñoo xam ne dañuy des waaw déglu ma kon da nga naan sénégalais yi lay seetaan Bamba Fall Macky Sall waru ko woon accepter pourquoi pas war ko accepter parce que yow nee nga parce que da ne jot na Macky Sall. non mais du ministre xam nga. non non mais ma wax de toute façon ministre conseil la ko fal. maanaam ñoddi na ko fu toll nii ñëw na ci wetam day liggéey ak moom. Hmm. loolu mooy leneen li nga xam ne tamit mooy alliance bi dox ci digganteem ak nga xamante ni moo di Idrissa Seck. Hmm. tout comme également ak. mais am na Moussa Sy waaw waaw waaw mais voilà léegi yow kon donc. ci ni Macky de Bamba Fall. waaw oh, non loolu. foofu foofu laa fexe ma ne la. waaw ma ne la tey Idriss mhm. am na loo xam ni kii kii na jar Idriss dañ ko fal président conseil économie et social. waaw comprendre mhm. donc tey man yaakaaruma Idriss Seck ngi xaar leneen. Mhm. si kii bi. mais de toute façon dugg na. gouvernement wala wala <laughs> dugg na man fan laay xaaree muy ban premier ministre lañ war a fal. xam nga loolu tamit yaakaar yow. ah ban premier ministre nga yaakaar. bu politique wala bu technocrate. non Sénégal moom mënoo fal politicien apolitique moom. mais mën ngaa fal politicien boo xam ni il est cadre mais aussi politique. tu sais pourquoi politicien premier ministre pol pol pol politicien baax. Hmm. Hmm? premier ministre. Hmm. dafa am yow da ma ne ma Euh, premier ministre. technocrate wala technocrate man je préférais premier ministre politique. politique politique. pourquoi parce que lui euh, il descend toujours sur sur le terrain te day déglu par exemple ma jox la benn. ñenn ñi di ci am. exemple jiitu jaaxa pour mu tëddee njaaxanaay aussi boole ci loolu. parce que ku far moom pour nga doxal ni nga war a doxalee problème day doon. non mais. mais yaakaar naa na aussi mm-hmm. boo nekkee premier ministre. Mm-hmm. buy def politique. Mm-hmm. yaakaar naa si ngay gën am. d'accord benn point ñu jeexalee ko gis naa naa la ci local yi ngay jàppale Alioune Sall il a perdu euh, Guédiawaye lu war a doon nga nekk Casamance euh, ñu gis la. ci te yow daal gars yi dañ laa gars dañ laa wulli fépp. non man yow daal baax la fenn man. wulliw ma quoi parce que man je suis de Sédhiou. Mhm. wax naa ko fi sànq. Mhm. Benno Bokk moo gagné. Mhm. quatre vingt soixante quinze pour cent. les parallèles yi ñoom ñëw ñëw deuxième. PDS ñëw troisième. yow askan ñëw quatrième. boo demee Guédiawaye aussi. Aliou Sall jàppale naa ko parce que c'est un ami un frère. ma gis ni communauté Casamance yi bari nañ foofu. samay mbokk yi samay parents yi. Mhm. ñoo xam ni foofu lañ yeewoo foofu lañ dëkk. Mhm. foofu la ñuy voté ji. Mhm. ma dem waxtaan ak ñoom ma gis ñoo xam ni beneen parti lañ nekkoon ñii mosuñu def politique. ma rassemblé leen ñu voté mais Guédiawaye. ñu ku gis ku gis résultat. nga xam ni Aliou moom moo gagné. politique ah, nag de de nga <laughs> nekkoo. Mm. xaaral ma ma wax la. explique xaaral ma expliqué la. élection locale. Mhm. mooy raw gàddu. Mhm. xam nga bokkul ak. Euh, xam naa bu baax waaw. présidentielle. Mhm. dafa mel ni yow mun ngaa gagné nga doon tête de liste. majoritaire ñi dem élection nga gagné ñi dugg saal kii ñëw indi xaalisam indi kiyam conseil dem votel ko pourtant yow yaa gagné Aliou Sall moo jiitu Guédiawaye mille deux cent cinquante six voix. cinq commune moom moo am cinq commune moom moom moo am mënoo gagné trois communes hmm. perte ñaar nga nga perte les élections mais c'est normal loolu loolu moom moo lay woon ni grandeur moom moo fa am oui non jaawale wuy <laughs> ma ma expliqué la <laughs> Guédiawaye hmm. lu fa am vote sanction hmm. moom moo fa am vote sanction moom moo fa am da gis ay communes yow yoo xam ni xam nga élection yi ñaar vote la. ñoom ñoo am. Mm-hmm. ñaar vote la am na commune yoo xam ni Benno Bokk Yaakaar dañoo votel seen maire beneen voté bi ñi dem votel opposition vote sanction la. Mm-hmm. nga ñëw golf xam ni golf kenn xalaatul ni dinañ ko perte mais tiraillement yi nekkoon foofu. Mm-hmm. entre les leaders responsables diw moo war a jur diw moo jur mu jur. sanction hmm. boo xoolee sax maire bu toog maire bu toog nii foofu amul majorité parce que nit ñi mënuñu laa raw. Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara laa raw. mille trois cent mille trois cent cinquante six voix. non peut-être yow. doo politicien mais man xam naa non non sa waay. comprendre naa sa waay xamante ni suivre politique sax. non déglu ma la man li ma la wax man damay ne cinq am <laughs> cinq communes. moom moo am géej géej waay Benno Bokk Yaakaar gagné 3 yeew askan bi gagné 2 te 2 yooyu. ñu kii gagné wuy ma. 2 2 2 mais li ngay wax ni laa xamul man man j'arrive pas comprendre. mais ma ne la vote sanction APR moo daana APR. donc pour wax la ni da ngay nangu koy ne moom nag. wax waaw non loolu la ma ne défaite am na mais bu mu tax ni amuñu. non mais moom jaru ci majorité défaite am na yemal foofu. non ay mais mais mais su ma ko waxee tamit <laughs> dama ne la non da nga ma ne la da nga ma ne ma da nga ko waa ma ne la waaw Aliou Sall li mu def géejuwaay. Hmm. Hmm. li mu def géejuwaay. Hmm. moo tax ma ne la euh, euh, du waa géejuwaay ñoo ko sanctionné. waa APR ñoo def vote sax bu fekkente ni cinq communes yëpp dañ ko gagné foofu nga wax d'accord mais mënoo gagné trois communes nga perdre deux ba pare bu ñu boolee voix yow nga raw mille deux cent cinquante six voix mais loolu am na. politique sax kon daal kon daal ci gàttal mu jeex APR. moo daanal APR fépp fa partout. merci jërëjëf voilà jaajëf. Okay, c'est euh, donc ni mu nu mu donc nu mu nërmeeloo jàpp ni c'est pas la population ñoom ñoo voteel ci ci non Aliou Sall li mu def géejuwaay ci ay explication waaw amul Aliou Sall ñu xoolee bu ñu xoolee trente-cinq mille trente-cinq mille et quelques euh, trente-cinq mille et quelques am na ko ci kaw vingt vingt-neuf mille voix et quelques yoo xamante ni moom la Aliou Sall raw loolu boo koy boo ko jëlee fan nga koy xam nga xam nga fu lu ñu daanal parce que boo nee Aliou ay dara amul foofu majorité. majorité également daf may daf may jaaxal. te boo xoolee tey ci voix yi la mu ëppalee Aliou Sall. moo tax tey mu jël maire bi gis nga man bu fekkente ni Aliou Sall. Hmm. il a fait cinq ans Guédiawaye man dem naa Guédiawaye avant Guédiawaye xam naa Guédiawaye. mais majorité bi nga wax. non déggul ma rek xam nga daanal Aliou Sall majorité bi alors que moo ko fa ëpp ay ay ay voix. non ëpp kaw yooyu loolu laa lay wax ni ma ne la man dama yaakaar da pour dimbali la nga mën a mm. avancer. da nga koy accepter également ñu avancer. moom yàgg ne raw gardu. non foofu comprendre moo demee noonu. léegi dama ne la Aliou Sall gagné perte géej gi géej mm. géejuwaay mm. man loolu jàppee ma ko ni. waa géejuwaay ñoo bañ Aliou. parce que vu ses réalisations li mu def. Mm-hmm. si école yeeg si si. mag yeeg si santé si publique moo tax sur cinq communes mhm. il a perdu que deux te mu raw mille deux cent cinquante six voix si si si franc léegi élection moo demee noonu yow mun nga nekk APR ma nekk APR ma nekk APR ma jàpp ni ci bu jiitoo man euh, duma feeñ nga ne sa sa nit ñi voté leen ma commune bi département bi ngeen voté diw mhm. ñeneen yi nekk commune bi maa waroon jiitu mhm. jiitu ma dem vote sanction man loolu damaa jàpp ne APR moo daanal APR terewul Aliou nangu na defetam ba mu woo waa ji mhm. félicité waa ji tamit ñi ngi koy ñaanal ñaanal di ko souhaité aussi yow bon mm. mais man li ma gëm jàpp ko mooy Aliou Sall il est toujours mm. majorité mm. élection yi dina ñëw fi ba 3 mois 4 mois on verra quoi voilà surtout ça là parce que fritation la non pare non pare du noonu c'est-à-dire que président ah, euh, moo war a jël responsabilité am mm-hmm. régler problème bu nekk si biir affaire tant que réglé ko tamit ele chaque élection nii. discipline de parti dafay war. voilà c' ngir loolu mën a. voilà donc c' est ça quoi donc alors euh, yegg si nañ suñu cappaandaw euh, émission amoon nañ mbégte bu baax euh, Wadifa Dramé ñu dalal la ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen di. remercier aussi mm. euh, seen euh, liggéey bi taxawaay bi. Mm. man vraiment bi moo duggee fii dama impressionné. Mm. gis ay jeunes ay tout ça là quoi. Mm-hmm. voilà donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. quoi mm-hmm. vraiment jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup Wandifa Babacar ñu tàggatoo ba ëllëg. voilà jaajëfal ko di la jaajëfal ay di jaajëfal ñi nga xam ne saa su ne ñu ngi topp ci seen émission ultimatum amoon nañu mbégte partage ak yéen ab diir. di leen jox di daje ba ëllëg incha allah beneen jërëjëf yéen ñu doon suivre ñi jàppoon ci technique bi également ñu ngi leen di jaajëfal am jito lay faal di leen jox rekk di daje ba suba incha allah ci ultimatum ak beneen gan